Heavy Bass.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 yooyu wayu yooyu bi ñu leen tegee loxo fekkee nañu leen ak ay armes yu ñu doon agressé ay armes blanches maanaam paaka ki jaasi yamba ju takku pompe à gaz marteau ñoo bon ak ak coupure bu foo biyee gaa ñooñu nag ni ñu def ba teg leen loxo mooy foo fekkee secteur boobu di ginnaaw raay te a fa constaté ab délinquance bu jéggi dayoo wayu yi fa nekk di attaqué nit ñi di leen agressé ci mbedd mi ak di dal ci seen kaw di jël seenu xoolal di daggee ka dugg te boo xefee ñu jàmmarloog yaw bi police jotee information yooyu na ci lañ defee descente ci bërëb bi wayu yi nekk dal di ciy teg loxo juróom-ñeent ñoom ñëpp di ay dawalkatu sareet <laughs> bari nañ ci nag de moo tax ma ne réew mi yan dawalkatu sareet yi war nañ leen xoolaat de ak yenn dawalkatu scooter yi ndax léegi sareet ak scooter daal ñu ngi koy bëgg a def jumtukaay boo xam ni càq-càq agressé lañ ciy liggéey moo ne sareet ak scooter am na ñu koy utiliser di ci liggéey di yóbbul seeni waajur waaye nag am na ñu ci nekk ñoo xam ni dañuy mbubboo sareet yeeg scooter yi lu ñu romb ne tungaan teg ci dal di dawal fëx moo tax wayu yooyu bi leen police yi gasamee ne ñu ci bari nangu nañu lu ñu leen doon tuumaal ma ne réew mi benn sécurité amul moo tax mane ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw korona la wax commerçant ya nekk ca Bakel nag fi mu ne bu ñu tëddee mën nañoo nelaw ba yendoor ndax ajallo di ab wayu bi doon daggi boutique yi di sàcc fi mu ne teg nañ ko loxo ajallo moomu nag nee ñu impliqué wu na ci cambriolage yu bari yu am foofu ca commune bu Mudéeri nekk ca département bu Bakel càccam gu mujj gi mu mujjee def nag mu ngi ko def ci guddi ñaar fukki fan ak juróom-benn jëm ñaar fukki fan juróom-ñaar ci weeru juillet bi weesu sawaay daal guddi googu ñetti buddi gu commerçant la ñëw dal di dajji jël fa xaalis bu takku mu naan deetawaay mu ne fa tungañ marchandise bu takku sawaay nee nañu xaalis bi mu wàmmi toll na ci deux millions huit cent mille bi mu jëfee li muy jëf nag ba yaakaar ni raw na bi commerçant yi xëyee ñëw gis seeni melokaanu pla oustaz daanaka crise la ñu bëggoon def ma ne ko dafa metti de xëy liggéey dajale benn waay jaar fa ne ko tuŋaañ moo taxit ci noonu informé gendarmerie bu jaawara la ñu def bi gendarmerie jaawara yegsee ci seenu xereñ la ñu visionné caméra de surveillance yi fa nekkoon dal di gis a jàllo mu ne fang di daggee ka sàcc ma ne ko dóora ci de naka noonu ci la ñu taalee seen oto dal jubali këram fekk ko muy bégee kon niib sawaay na fay xiini xaana di weddi waaye gendarme yi fekk boobu am nañu ay élément yu leer nañ ci moom yu leen di wan sàcc na ndax wolof njaay moo ni weddi gis bokku ci bi ñu perquisitionné këram na fekk nañ fa matériel bi mu doon daggee boutique yi ay raskulu pince ciseau à marteau électrique sa waay daal bépp xeetu matériel bi mu doon daggee boutique yi fekkee nañu ko ak moom ak xaalis boo xam ni toll na ci ñaari million ak marchandise ya mu wommee won ci boutique ya <laughs> xanaa lii nag de mooy leer na nañ a noonu sa waay bi ko gendarme yi gënee gësam mujj naa nangu ne ne moom moo sàcc boutique ya dal di ciy teg sax ne wàllum càcc mos nañ ko cee jàpp ba condamné ko <laughs> nga ma gars yi dañoo xarañ de fi mu ne defeere nañ ko ca parquet bu Tamba leen sàcc moo tax maa ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw korona laa wax réew mi nag léegi laaj bi samp mooy xanaa liggéey doxatul ci réew mi réew moo xam ni kone yi dañuy ami liggéey bàyyi ko fi dem dugg ca gal ya mbaa ñu yor seeni liggéey làq ci suuf yeneen mbir yoo xam ni mën na leen a dugal ci musiba ma ne looloo dal tailleur bii de dëkk ca jàmm gën si ndax ab opération de sécurisation bu commissariat bu jàmm gën si doon def ci la ñu heure fekkee ko ak ñeenti kilo yi yamba xet mu xet yow ñu waroon la fekkee tisi ak ciseau waa ji ñi ngi ko tegee loxo ca wetu fooraay bi ñu ko arrêté fekk mu ngi nekkoon ci moto la ñu ko fuyotee bi ñu ko fuyotee ci la ñu fekkee ci moom yamba jooju bi ko gars yi laajee waa yow yamba ji ku la ko jox ci la dévoilé fournisseur am sama gars yemu ñoŋ moom foofu de ndax dañoo dem ba këram daldi lañ bët fekk fa yeneeni mbuusi yamba may laaj nag ñeenti kilo yi yamba ak i mbuusi yamba waa ji da koy tux wala da koy jaay ay dañoo bëgg yamba de moo leen gënal ganaar ga ñu njoñ mu nekkoon seen xibaaru bës dig daje beneen yoon ci yeneen xibaaru bës